bonsoir waa mbir waaw ana bi yoon ji bi xamal leen ma jaax man bi dem su guddi bu diggee gisuma bàyyil guddal bekki nga wax guddal gi ngay non yàlla moom bindee nii bàyyil guddal gi ngay guddal moo ma neexal mais ma jaaxal si suba gi ñëw naa gisuma ko waaw si suba fii man lama yaakaar daa dem dama si fifty cent fifty cent kii daa xam fu fifty cent nekk ya. fifty cent dëkk ñaniñ gii

booy bi dafa booy dafa. doomu awa mbay. dafa mën tooñ dafa mën tooñ. booy bi da ngay da ngay romb sax mu lay. yow dañ koy kër jéeg lañ koy yóbbu dañ koy siikam. yaa ngi fàttali siikam temps boobu wax nga dëgg jàpp siikam ko ba. bi tooñ la mën booy bi day romb nii sax booy bi noonu laa defoon ma kokoramaay yar sama ginaar yi mu ñëw ba sama ginaar yi jël ko la la joon sax mu yam si boobu dañoo dégg mais robinet ba la tijji roose leen tooy leen def ak piscine neen ñooy sangu nee na ginaar dañoo tàng. booy dafa ñoo yab sax bu booy sax jarul yàkkam. booy dafa génn dara. kon daal na a loolu da nga jàng temps

moom lañ doon waxtaanee léegi nii. waaw ah, moom anim. ma ne fii daa ma dem si guddi ba léegi gisuma ko te fajar gi tam gisaatu ma. looy teg nii. ah kon fanaanu si gaal la. nee na fanaanu si moom man fii man gëj naa kaa gis. man benn jour maa ngi toog. wala dégg mu naan xaw ma lan. maa ngi jàppante ak ay nelaw quoi mu naan ay mbay faal kuubu mbay faal. waaw loolu nu mu demee. loolu lu génn si biir day jënd jënd. mais bu ko policier dañ koo dóora dóora doo ba mënul toog. léegi naa noonu benn daal nga indi. dégg naa benn bal nga indi dégg naa dégg boobu. maa ngi dégg mu naan golo gu ndaw dégg naa gën ñu kaa wala wala wala ba mu nooy bañ ka bañ bàyyee moo tax oto. américain bu muy ñëw fii nga yaakaar da doon naan ñii ki baye ki to sagay ke entolo lay wo ji wa alu ba dum ko bëna ci soy pi non boy waxal normal nak ay lak ay anglais ni yow déggo anglais bi mo ma jaaxal wa ok naka la sax yow foo nekk depuis dem gisuñ la baay ah bon boy boy dem doo tàggoo sax wala dem dem mais wuy looy tañ ni baaxul de jàpp xam na de am na lu dee de léegi nañ ko suuli rek du fekkee daa gaañu garaawul. ok ko la fekk dëkk ba dinaa la fekk dëkk ba baax na rek. ok gars yi maa ngi ñoom a na rek. waaw ko loolu. xanaa waxu la moo ko woo ma. lu gaañoo tax nañ localisation. tey la nga moom man fàtte naa léegi montan émission la du am date bi léegi lu mu bëgg léegi paa bi lu mu bëgg waaw daal nee na woo na ko te moom nee na. dina dugal cinq mille francs waaw maa ngi nii ngir. ngir yàlla sa junni yooyu bu ko fi wax yoruma ngir yàlla rek sa junni yi ma la yoroon ba ko mu seet. am na. ban solution. solution résultat opération defal ndànk defal ndànk solution résultat opération loolu dëgg la ci. garaaw xam nañ si mbooj mi. tonton Zil mbooj tonton boo xam ne bu mu gàccee lañ fi do faj ñu dem si moom mu jëm ñoo am lu ñu defal moom. <laughs>